Euh, jërëjëf euh, mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina walana muhammadin il makin wa ala wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida bisimillahi barke borom Tuuba mbokki jullit mbokki taalibe yi ñoo leen nuyu bu baax gannaaw bi ñuy santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd bu sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam dellu di feddiliwaat sunug taalibe ak sunug laxasaay ak sunug aju ci mawlana cheikhul xadim radiallahu taala anhu di ñaan yàlla bu baax alxalifatul xam li tariqatil muridiya cheikh mahamadil muntaqa ibnu cheikh mahamadil bachir suñ borom guddal aw fanam te yokk ak wéram ba àgg la mboolem ay naaram ak i mébitam ci lislaam bi ak ci diine ji ak yoonu murid wépp di nuyu bu baax mbooleem xalifa sënroo yi nekk ci réew mi di leen ñaanal gudd fan ak wér ak mbooleem kuréelu diine yëpp rek gina ci senegal ak ci àdduna bi di ñaanal bu baax Cheikh Moustapha Mbacke mi nekk ci bopp njabootu sëñ Mbacke Kajoor suñu borom yàggal ko fi may ko wér ak mboolem njabootu sëñ Mbacke Kajoor gépp di ñaanal bu baax Serigne Cheikh Mbacke mi nekk ci bopp njabootu sëñ Mbacke Anta Ngaabu suñu borom guddal aw fanam tamee ko wér di nuyu mboolem mbokki taalib yi fi teew yëpp rek di leen jox seen wàccuwaay di ñaanal ñëpp gudd fan ak wér ak tawféex eh, tey nag dañoo ñëwoon fii muy bis bi ñuy amal at mu jot muy bisub sant Serigne Touba ren nag ñu jàppoon ko la le 27 février bii di vingt 2021 eh, waaye nag ñu koy def ci beneen façon bu bokkut ak bañ ko daan defee muy dañ koy def ci. jàng alxuraan ak jàng xasida ak salaatu al nabi ak sikkar ak mboolem rek lu baax ndax jamono bi moo ko laajut ndax ku ne xam ne am na mbas mu fi am moo xam ne moo ñu permettre lu ñuy boole ay mbooloo wala ñu dajale mbooloo euh, ni ñu ko waxee ci annonce bi rek euh, lu mel ne màggalu Porokhane nga xam ne barkeem lañ ko doon a sëñ Muntaxa bu demee ba dàq ko ngir tawat ji lu mel ne màggalu Mbàkke Kajoor ak yeneen màggal yi ci aju yëpp concerné yoonu murit kon yaakaar naa suñ bis bi tamit bu fekkee ay taaliba lañ mm, war nañ koo mën a soppi moo tax ren moom woote ko dañoo jàng kaamil rek comme niñ ko defee rek jàng xasida togg ay bernde xool daara yi ne ci dëkk bi ñu yóbbu ko fa ngir liggéeyal ko sëriñ bi moo tax daal ren contexte bi changé ñuy ñaanal ñëpp ñu nga xam ne nag ñoo ci jàppoon def ci seen alal def ci seen ñaq te yàlla rek tax ak jëmmi Sëñ Tuubaa suñ borom mi xam ne mu am fay yàlla na leen fay fay leen lu kawe seen jort ndax saraxe day lu am solo ci lislaam te mooy dépassé sa alal ci ci lislaam ndax alxuraan moo ñu ko njëkk a sant alxuraan moo xam ne alladina yunfiquuna amwaalahum bi leyli wannahaari sirran wa alaaniya fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsanuun mu ne ñi nga xam ne dañuy dépassé seen alal ci guddi wala bëccëg ci lu feeñ walla ci lu nëbb te yàlla rek tax yàlla nee na ñooñu amee naa leen fay gu rëy te bu ëllëgee duñu tiit duñu ragal moo tax nag ñu def ko ci contexte boobu mooy togg ay bernde yóbbu ko ci daari alxuraan yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu jox leen ko kon nag yaakaar naa euh, loolu yàlla suñu boom moo ñu ko njëkk sant moo ñu ko njëkk digal euh, te togg aw ñam daa baax ndax am na ci hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di waxe ne ayuma muslimin athama musliman ala johin athamahu llahu min simaaril janna waxaan na ayuma muslimin saqa musliman ala zamain saqaahu llahu azza wa jalla min rahiqil maxtum nee na bépp julit boo xam ne ni dafa joxe aw ñam mbokkum julitam mu xiif kooku de yàlla boo liggéey dana ko lelal ca meññetu aljana ma waxaa ne bépp julit boo xam ne nii dafa màndal mbokkum julitam ba mu maroon ba màndi suñ borom subhanahu wa taala dana ko màndal ca dexuk rahiqul maxtum ga ca àjjana mu mel ne ñaar yooyu yëpp gis nañ ko fi joxe nañ fi ay ñam euh, joxe nañ fi ay naanu nit ñi barkeelu kon lu yàlla digle la waaye lu yonent bi sallallaahu alayhi la te sunu sëriñ Mawlana Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu day wax ci téeram boobu di masalikul jinaan naan ama tasadduqu mahal infaaxi fa jàmmahal xayraatu bi ittifaax nee saraxe ak dépassé sa ci yoonu yàlla mboolem yiw yëpp daje ci ñaar yooyu boo xoolee ba ci ba ci waxam jooju ci ci masalikul jinaan dem na ba وكا بدل ورى الجوى والخم نادى مناد أين أهل الخدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين فيوم مروا لجان المسلمين ويوم الخيامة ñi xam dañ daan saraxe